kos danaka lu yées benn weer moo des ci ubbiteg classe yi bëri ay jafe-jafe lu ñuy ragalaat mi mooy yokk gi ñu yokk inscription yi ci diggante vingt mille ak vingt cinq mille ci collège yi wala ci lise yi kenn ci ñi jiite parents d'élèves yi mu ne ñetti doom la am dix mille lay fayal kenn ku nekk kenn ki mu ngi quatrième ñeneen ñi troisième lañu ñu nekk soo ko dajalee dina fay lu ëpp cinquante mille boo ci boolee fourniture yi ak yeneen ak yeneen lu diis la ci ñun ñi nga xamante ne ci école bi la ñuy yóbbu suñuy doom yi at mi weesu débat bi yépp ci njàng mi ak jàngale mi ci yokkuteeg inscription yi la tënku woon gouvernement bi génne woon benn projet ñeenti ministère signé ko tënku ci nu ñu war a yoxanalee inscription yi fixé ko ci trois mille ba ci cinq mille yokk ci sax ne bépp école boo xamante ni dañuy yokk seeni inscription COSYDEP nga xamante ni daf fi nekk ngir saytu ak aar njàng mi ak njàngale mi ñu ne ñoom lii yëpp dafay indi ñàkk xam su uh, yokkute amee ci ci wàllum njàng mi rek jàpp nañ ne dina am ñoo xamante ne xëy na peut-être naam bëggoon nañ jàngi dootuñ dootuñu ko def wala ñaam naam xëy na peut-être mënatuñ ko dañuy obligé bàyyi fokk rek ku nekk def ci sa doole il faudrait que école nga xam ne dafay gën a wàcc ba ci dëkk bi gën a sor soraane nga xamante ni il faudrait que parents d'élèves yi comme société civile bi ña nekk foofu noonu ñëpp di yëngatu ci wàllu l'école ñu war a mën a ñoom tam teg benn kuréel foofu noonu pour topp mesure yooyu noonu saytu ko. ba noppi yokk ci ni fokk ñëpp dajaloo ngir njàng mi jëm kanam. ressources yi mooy lañuy ñu woowee fonds de dotation nga xam parfois nguur gi da koy jox gox goxaane pour ñu mun a doxal ci wàllu wér yaram ñu mun ko di teel a jot. pour que ñooñu mun ko jébbal euh, waay waaye jàngalekat yi wala waaye waay l'école bi ba nga xamante ne nii léeg du ñu soxla di di laaj xale yi. loolu yëpp nag yaxanal ak mën-mën moom moo di benn ngir dàq lépp lu nga xamante ni moo di ñàkk a jàng.